بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه fa ida qara'naahu fattabic qur'aana summa inna alayna bayaana kallaa bal tuxibbuuna alcaajila wa tadaruuna alaaxira wujuuhu yawmaidin naadira ilaa rabbiha naadira wa wujuuhu yawmaidin baasira tazunnu an yufcala biha faaxira كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمزاج نبتليه من نطفة أمزاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأصيلا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وظللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت سم رأيت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقيهم ربهم وسقيهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أشرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة faman shaa attaxada ila rabbihi sabila wa ma tashaa'uuna illaa an yashaa allah inna allaha kaana aliman xakima yudxilu man yashaa'u fi raxmatih wazaalimiina acadda lahum cadaaban alima allahu akbar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 والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا وعذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فريت وإذا الجبال نشفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم نجلت ليوم فصل وما أدريك ما يوم فصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامقات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث ثعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالخصل كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكينون فإن كان لكم كيد فكينون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون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 الله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 وبنينا فوقكم سبعا سدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به, به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا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 فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنظرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أهنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى فأريه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى fa axadahu allahu nakaala alaaxirati wal uulaa inna fi daalika la ibratan liman yaxshaa antum ashaddu xalqan min samaa banaaha rafaca samkaha fa sawaaha wa axtasha laylaha wa axraja duxaaha والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naha annafsa an ilhawe fa inna aljannata hiya almawe allahu akbar allahu akbar allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd allahu akbar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 أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى فهو يخشى فأنت عنه تلهي كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونحلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ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 wa ida aljannatu uzlifat alimat alimat nafsun ma axdarat fala uqsimu bilkunnas aljawaari lkunnas wallayli ida asas walsubhi ida tanaffas innahu la qawlu rasulin karim zi quwatin inda di larshi makin mutaain thumma amin wa ma saaxibukum bi majnun ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله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 alladi xalaqaka fa sawweeka fa addalak fi ay suuratin maa shaa rakkabak kallaa bal tukadibuuna biddiin wa inna alaykum la xaafiziin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun inna al-abraara fi naciim wa inna al-fujjaara la fi jaxiim yaslawnahaa yawma addiin wa maa hum canhaa bi gaa'ibiin وما أدريك ما يوم الدين ثم ما أدريك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يحسرون ألا يظن أولئك كأنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدريك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد نثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدريك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون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 يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وأما من أوتي كتابه بيمينه وراء ظهره وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه بيمينه وراء ظهره وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده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 إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وله العذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبرئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتيك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ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 التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصغر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه rabbuhu fa akramahu wa naamahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma ida ma btalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanani kalla bal la tukrimuna alyatim wala taxudduuna ala taami almiskin wa taakuluuna turaasa aklan lamma wa tuxibbuuna almaala xubban jamma kalla ida dukkat ilardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa wa jia yawma idin bi jahannama yawma idin yatadakkaru linsaanu wa anne yawma idin yatadakkaru linsaanu wa anne lahu dhikre yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati fa yawma idin la yu'adhibu adhabahu ahadu wa la yuthiqu wathaqahu ahad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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى wa amma man baxila wastagne wa kadaba bilxusne fa sanuyassiruhu lilusre wa maa yugni anhu maaluhu ida taradde inna alayna lalhude wa inna lana lalaxirata waluule fa andartukum naaran taladde laa yaslaaha illa lashqa alladi kadaba wa tawalle wa sayujannabuha latqa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 alam yajidka yatiman fa aawe wa wajadaka dollan fa hade wa wajadaka ailan fa agne fa amma alyatima fala taqhar wa amma alsaila fala tanhar wa amma binicmati rabbika fa haddif allahu akbar allahu akbar sami allahu liman hamidah rabbana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 laqad xalaqna al-insaana fi axsani taqwiim summa radadnaahu asfala saafiliin illa alladiina aamanuu wa amilu saalihaati falahum ajrun gayru mamnuun famaa yukadibuka bacdu biddiin alaysa allaahu bi axkami alxaakimiin bismillaahi rahmaani rahiim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al-insaana min alaq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 ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalu almalaikatu warruuxu fiha biidni rabbihim min kulli amr salaamun hiya xatta matlaci alfajr bismillahi arrahmani arrahim lam yakun alladina kafaruu min ahli alkitaabi walmushrikina munfakkina xatta taatiyahum albayina rasulun min allahi yatluu suxufan mutahara fiha kutubun qayima وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال جرة ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره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 bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani irrahimi maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata alladhina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدريك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوث فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة رارية وأما من خفت موازينه فأمه غاوية وما أدريك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم bismillahi rahmani rahim wal asri inna al insana la fi xusr illa alladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bilxaqi wa tawasaw bisabr bismillahi rahmani rahim waylun likulli humazatin lumazah alladi jamaca maalan wa caddadah yaxsibu anna maalahu axladah kalla layunbadanna fi lxutama wa ma adraka ma alxutama naaru llahi almuqada allati tattaliu ala alafida innaha alayhim musada fi amadin mumaddada bismillahi rahmani rahim alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabi alfiil alam yajcal kaydakum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف ماكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع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 tabbat yadaa abi lahabin wa tab maa agnaa anhu maaluhu wa maa kasab sayaslaa naaran zaata lahab wa imraatuhu xammaalatal xatab fii jiidihaa hablum min masad bismillaahi rahmaani rahiim qul huwa allaahu ahad allaahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad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 allahu akbar allahu akbar allahu akbar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 subhaanaka allahumma laa ilaha illa ant subhaanaka inna kunna min alzalimin allahumma laa ilaha illa anta subhaanaka inna kunna min alzalimin allahumma innaka afuwun tuhibbu alafwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun tuhibbu alafwa fa'fu anna allahumma innaka afuwun karim اللهم إنك عفو كريم كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وبك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا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 نسألك كما كما تجير بين البحور أن تجيرنا من عذاب السعير ومن فتنة القبور ومن سؤال منكر ونكير اللهم أجرنا اللهم أجرنا من فتنة القبور ومن دعوة الثبور يا ودود يا غفور اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك, إنك تهدي من تشاء على إلى صراط مستقيم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره wa darajaati al ula min al janna wa darajaati al ula min al janna اللهم إنا نسألك والدرجات العلى من الجنة يا ذا العطاء والفضل والمنة allahuma xfir li mawta almuslimin allahuma xfir li mawta almuslimin allahuma xfir lahum warhamhum wa aafihim waafu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi mudxalahum واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا إذا سرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا Thank you. allahuma inna nasaluka xashyataka fi lxaybi walchahaada wa kalimata alxaqi fi lgadabi walrida walqasda fi lfaqri walgina wa nasaluka allahuma naiman la yanfad wa qurrata aynin la tanqatic wa nasaluka allahuma ladata alnadar ila wajhika alkarim <laughs> ya xayu ya qayuum ya xayu ya qayuum laa ilaha illa anta subhanak inna kunna min alzalimin allahumma inna nasaluka alfawza bada alqada wa barda alayshi bada almawt ya karim ya hayu ya qayum ya dal jalali wal ikram yaa karim yaa mannaan yaa xayu yaa qayuum yaa arxama arrahimin laa ilaha illa anta subhanak inna kunna min alzalimin allahuma inna nasaluka bismika al azam alladi ida ducita bihi ajabt wa ida suilta bihi actayt أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وذرياتنا ومن أحببنا فيك ومن أحببناه فيك من النار يا عزيز يا غفار اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر واكتب لنا عظيم الثواب والأجر اللهم كما نصرت أولياءك اللهم كما نصرت أولياءك يوم بدر يوم الفرقان انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين allahumma ansurhum fi filastin allahumma ansurhum fi filastin allahumma innahum diaafun fa qawwihim wa fuqaraau fa awnihim wa uraatum faksuhum wa mazlumuuna fansurhum wa mazlumuuna fansurhum يا ناصر المستضعفين ويا مجيب دعوة المضطرين ويا جابر كسر المنكسرين اللهم كما فتحت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم كما فتحت على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فافتح لنا أبواب رحمتك وأبواب مغفرتك وأبواب خيري الدنيا والآخرة وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين للصالحين من الخيرات يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله اللهم افتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله اللهم آمنا في دورنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق عبدك اللهم وفق إمامنا وخليفة عبدك خادم الرسول عبدك محمد المنتقى يا من له الآخرة والأولى اللهم أيد بالحق إمامنا وخليفة عبدك خادم الرسول عبدك محمد المنتقى يا من له الآخرة والأولى اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وخليفة عبدك خادم الرسول عبدك محمد المنتقى يا من له الآخرة والأولى اللهم وفقه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد ووفقه إلى ما فيه العز والنصر للإسلام والمسلمين اللهم انصر المعلمين اللهم انصر المعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات واقض حوائجهم اللهم كن لهم وأعنهم ووفقهم لما تحب وترضى وارزقهم من حيث لا يحتسبون برحمتك يا أرحم الراحمين يا خير الرازقين اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار اللهم كف عنا حقد الحاقدين وحسد الحاسدين واجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنهر والجبين الأزهر والمقام الأطهر وصل اللهم عليه والآل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 gaaw leen gaaw ngeen woote 77 251 04 05 Tawfekh Production le leader dans son domaine. ndax am lépp tawfeex ci sëriñ bi mën a may. ci sëriñ bi.